comme quoi que mën nañoo wax ne du dil parce que ñëpp ne nañ à l'unanimité deal la bu ñu teg parce que itam ñoom ñi ñuy jiite am nañu xel boo xamante ne bii xañ na noonu la ñuy ku ne xam na ni fii parti au pouvoir. Mhm. soo demee élection pour nga gagner premier tour yombul te boo demee deuxième tour dañ lay sot donc loolu aussi mën na ne stratégie la mais quand li li Fama wax léegi aussi ak li nga ci wax mën nañu ko euh, nangu euh, Cheikh Ahmed Cissé <laughs> <laughs> Cheikh Ahmed Cissé dey moom dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw a ñaaw a teg ko ci deru yàlla moom yàlla la waxal ku waxal yàlla nag je pense que jaamu yàlla yi ñoo war a wax ak yow en revanche mu nekk loo xamante ne bi quand même c'est déplorable nekk lu lu ñaaw loo xamante ne bi Jamra nga xamante ne bi ñoom ñoo ko pare ne woon mu nekk euh, membre foofu noonu génne nañ ko euh, le même jour donc génn ko ci fondation boobu di Jamra après juste après nag gis nañ ko mu daw génn Sénégal te réew ma mu nekk mu toog fa yëkkati ay kàddu yu ñaawa ñaawa ñaaw ñaaw jëmale ko ci Mame Matar Gueye jëmale ko ci Sénégal ak ñeneen ak ñeneen dinañ ñëwaat ci kanam ci appel yi ak son Ousmane Sonko ak yi ni mel en attendant ñu wax ci loolu jeeg bu ti ko tu connais Ahmed Cissé xam nga Ahmed Cissé non Ahmed Cissé xam naa ko bu baax ndax bokk naa ci ñi ko njëkk a defaral publicité en bokk naa ci ñu ko njëkk a defar publicité ci doy waar ak ànd laa buri boobu. mais waaw parce que xam nga ma baax yow Bamba. lu ma laal a gën lu ma laalul ak fi réew mi toll. Mm-hmm. kon xam nga xam naa ko ndax te nañ. Mm-hmm. mais pour man senegal dañuy bay bayal mbir ba mu dem ba ëpp doole. Mm-hmm. parce que ni mu demee nii njëkkoon na am nu mu demee. Sénégalais yi fal ko. teg ko ca kaw yëkkati ko di ko déglu ak ci ni muy waxee te loolu du suñu réalité donc dogguma la mais amoon ngeen ay relation dès le début bi muy commencé business am quand même amoon ngeen ay relation yu yu yu sincère yoo xam ne doon na ñëw euh, di la nga koy jàppale waaw ma koy jàppale di ko defal ay publicité mais buñ siiwee rek bàyyi la waaw noonu la ñuy def bëri naa yow xam nga ma bëri naa ci bëri na ci ay moroom d'accord ba ci fi ma jaar ba fi ma egsi dañ lay teg pour benn visibilité bi hmm. nga leen koy indil buñ ko amee sànni après dem na ba benn moment maa ngi ak numéro mi ngi ak sama numéro mais danga koy woo sax du jël. mais pour man sénégalais yi ñoo ko bay bayal. bàyyi ko mu def li ko neex mu dem ba bokk Jamra Jamra ak ni mu toll ci réew mi. boo defee lu dul yoon Jamra moo lay xëcc teg la yedd la pour une bonne fois boo deful ñu doog laa jàllale fi fi mbaxana doonee benn. Mhm. ñoo xam ne suñu réew mi dafa dafa nekk réew moo xam ne réew réalité la. Mhm. dëkku lislaam dëkku diine. Mhm. ay bëgg yàlla fees fi dell di dund yàlla ak yonin ba. mu ñëw doxalee ni mu doxalee ñu yóbbu ko ba mu am fi carte Jamra gis nga ko tey bi mu ñëwee lu mu wax dama leen saraxe woon da ngeen a ñëwoon jox ma carte Jamra ah. waaw parce que ku seetaan laay fam déglu ko ba pare mu ne sénégalais lu ëpp parce que man liñ dagg rek laa gis mm-hmm. liñ ci ci ci li ma gis rek ci mm-hmm. laay wax mm-hmm. parce que seetaanu ma live mais lim dagg dugal ko daf ñoo daf daf daf ñoo tuutal daal daf ñoo jàppee nu ko neex te sénégal boo ñëwee dañ lay accueillir yaatal la ñu jox la carte Jamra boole la ci Jamra loolu mooy nawloowu ma leen woon pour man ñu jël ba di la teg ci suñu télé yu mag a mag fii ci Sénégal jox la nopp di la dëglu moom kon moom bu amoon ngor sax waruñoo fay lii parce que ñun Sénégal ñoom ñoom ñoom ñoom mbubboo loolu dañuy boot dañ lay boot nga màttuñu sénégalais moo mel noonu sénégalais moo baax de trop boo ñëwee mu yaatal la mhm. ibbil la ay portam ibbil la léppam ba nga am fi say teraanga yow fa nga nekkoon nañ la faa dóor ba génnee la nga ñëw sénégalais yi fat la teg la fuñ tegul kenn nga indi sa njaay di ci wax lu la saf ci wax ju ñaaw ñu accepté la nangul la. Mm-hmm. ngay doxal léegi nag loolu warul laa do ñu jëla teraanga jëla ngor. ngay am nooy waxee ci ci ci ci population Sénégal nga dem ba beneen dëkk wax ba saaga. Mm-hmm. wax ba insulte ñu dox wax lu ko saf loolu du yoon. te sénégalais lii pour man war nañ ci mën a yeewoo pour beneen yoon. Mm-hmm. ay temps ci ginnaaw boo xoolee nu ma ko mën a waxee ay ñett dañ daan ñëw ci dëkk bi fees ci dell. di jël suñuy compte di ko vider ba mu set te loolu ñu jóge ci beneen dëkk ñooy ñëw ci suñu réew mi ñu ak accueillir leen appartement yi fi gën a luxe ñoom ñoo fay dëkk mais nun ñu def da ngay jékkee-jékki nga am sa compte ñu ñu ñu ñu wax ko ba mu set mm-hmm. nga xëy jaaxle di dem ci rajo yeeg fu ne di ñaan ndimbal te loolu dañ koo bay bayaloon Sénégal léegi ku mel ni ak Ahmed Cissé mhm. ñëw fi di jaay ay produit am di wax mhm. wax yu ñaaw wax yu salte wax yu wax yu garaaw mhm. ñu jël la kaweel la dem naa ba gis tele bu mag di ko defal ko ay plateau muy toog loolu du yoon léegi nag kon tey lu mu ñu def rek ñun lu lu ñu def dinañ ko defaat sénégalais lu ñu la def dinañ la ko defaat d'accord Davida Cheikh Ahmed Cissé <laughs> xanaa man damay ziar ñi fi nekk gum dèjà ku ci mel ni ñoom suñu teg euh, Mina Samb sama jumelle Fama Kassé maa leen di bëggee ñëpp vous êtes vraiment comme ni koy Bamba di wax nombre di ñu seetaan bàyyi seen lépp ak suñu yaay ji nga xamante mooy Amy Ndiaye ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp xam naa ne dina ñëw léegi ci kanam. waaye man du ma ko ne Cheikh parce que Cheikh lu rëy la du ma ko ne Ahmed ndax Ahmed lu rëy la. Mm-hmm. mais ngóor si Cissé yàqkat bi Cissé. Mm-hmm. soskat bi Cissé. ku xam ki Cissé te bu laa ma may neex ñu officiel ma ko. ndax dafa am loo xamante ni ñun comme ni ñu koy waxee senegal dëkk la boo xamante ni amul kubéer mm. ku jug dugg mm-hmm. ñu jël suñu teraanga yëkkati ko fu ne ba ñu naw ñu ci lu bari mu am ñu ñu rax soppi ko loraange mm-hmm. te kenn du ñeme wax mm. kenn mooy Cheikh Ahmed Cissé mii muy ki toog ba mu neex ko ne dinaa dem dëkk ba nga xamante ni damaa jàpp ni caaxaan rek a fa ne wane leen Davida damaa jàpp ni caaxaan rek a fa ne muy benn. mu ñëw xam ni ne Sénégal bii dafa am nu muy doxee. ak nañ koy doxalee. déggoo ma de ni muy doxee ak nañ koy doxalee. dañu koy doxalee ci kaw it caaxaan dañu koy doxalee ci kaw it maanaam yow kan la dañu koy doxalee ci yaama neex dañu koy doxalee ci lu dul dëgg. yàlla na leen dinaa leen indi kon ku leen di ruq te doo leen ci mën dara. mooy li ndax dangeen ngeen a jël dëgg dëxañ ko. yëkkati ki nga xamante ni alal la am fàtte ki nga xamante ni moom xam-xam la am waa tamit mu jël alxuraan dëxëñoo ko nga fàtte ko jël sa doole ak sa lépp say puissance ak say énergie yépp jox ko ci ñi nga xamante ni yàq société bi moo leen ñar ma ne ñaata ci ay nit ñoo fi nekk wàcc alxuraan bokk ci ay concours yi gën a rëy te duñ leen dalal ci télé yi lu njëg njaat ñun ñooy njaat ñun si di lu njëg njaat ñun ñooy njaat ñun tele yi muy benn te jamono jooju am na koo xamante ni chaque jour mu dëkk di def lu baax doo ko fësal doo ko wane ñaata ci ay nit nga xam ñu nekk ci difficulté ñaata ci ay nit nga xam ñu nekk ci tumuraanke gu metti ñaata ci ay nit nga gis ñuy sonn di def loo xamante ni c'est des bonnes actions du ñu leen fësal mm-hmm. ñuy mal ni Cheikh Ahmed yi la ñuy dalal ci télé yi ñu yàq xale yi kon Sénégal moo mérito ku mel ne seex te jamono jooju yaa ngi jël gor tuumaal ko lu rëy ci accusation teg ci benn bu ca njëkk ci viol teg ci benn bu ca njëkk ci menace muy ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ki nga xamante ni léppam ba ba muy dugg fa nga xamante ni tey ji mooy Sébikotane Alxuraan karim lañ ko doon tettoo kooku tey ji nga jël bu ko tey ji dooleel ko mal ne kii déet ah. attaqué ku nekk moo tax tey dinañ ko attaqué moom mii dama ne kii bii mooy deuxième fois ma ne la lan ah, bii mooy deuxième fois muy attaqué yàlla ndax ca njëlbeen ba boo gisee dafa leen nañu jël sëyukaay yooyu daal di koy tas fañ ko tasee man duma fa jaar ndax foofu dafa am ku fa nekk muy représentant suñu borom muy minbar bi di imam bi. dañoo seetaan nag liñ waaw bañ ko jëlee bañ ko fa jëlee yóbbu ko fañ ko denc. ka fa doxal dox googu sama papa la muy Mamatar Gueye tey papa mere naa la yow papa yow dafa taxaw ñoom mu ñaan la njekk nga may ko te jamono jooju am na ñi nga xamante ni wax ci yàlla waxal yàlla moo tax tey ju ñu nekk ci kaso bi. Mm-hmm. waxal seen réew ngir seen réew avancé moo tax ñu dugal leen ci kaso bi ñu mosuñu leen ñaanal intervention wax ma kan kan moo nekkul ci kaso bi te waxalul réewam moo tax mu dellu ci kaso ba ana suñu yaay jigéen ju mën góor la mhm. réewam moo tax ñu dugal ko ci kaso bi mhm. ana Fadilou Keita réewam moo tax ñu dugal ko ci kaso bi ana Karim Xrum Xax réewam moo tax ñu dugal ko ca kaso bi ana ñi nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne réewam moo tax ñu dugal ko foofu ana ana ana ana réew réewam moo tax ñu dugal leen ci kaso bi cependant nag ay vauriens yu mel ni Cheikh Ahmed Cissé bi ñu leen di jël di leen di privé di leen di jox loo xamante ni joxuñu ko ci ki nga xamante ni dem def concours alxuraanul karim ba génn ci ñu tardal ko defuñu ko xoolal ci réew mi ma lay wax muy télé yeeg site yi ñoom ñëpp ñoo ci am ñooy valoriser ces défaillants de merde la ñii la dadul yoon su fekkee ni yàlla dëgg la bëgg nañuy waxante dëgg jàkkaarloonte suñu bët parce que am na loo xamante ni day dem ba maanaam day ma ne loolu mooy actualité du actualité Cheikh mii du actualité. du actualité de. Mm-hmm. fii la laale woon ak affaire de Cali Californie Sall ana Californie barki démb la live di say saaga ndayam moom mm-hmm. barki démb la ko Californie di saaga kon ñoom ñoo bokk léegi li ma gën a métti dans tout ça xotti war may kilifa yi. ba heure bu leen neex ñu taxaw di demander des excuses ci Sénégal boo xamante ni lan la Sénégal lan la ma jàpp ni képp ku fi jël kàddu yëkkati ko teg ko ci suñu kilifa yi dañu la war a duma duma national mais déedéet da ngay wax sa lu na weng nga ñëw taxaw di excuser wu. ñu baal la di victimiser wu. papa yow Pape Matar Gueye Jabra papa yow nga xamante ni yow li ma gën a metti sax du Pape Matar Gueye Jabra ndax moom. mérito na maanaam façon bi bu nekk ñu ko koy teg mu koy yëkkati ak di koy accepté mais ñu la ciy tudd ba tudd sa mag ba nga xamante ni mooy Latif Gueye man nekk ca su ñu demee ba kay boole ci wax ji Papa Makhtar Gueye kon yaa tooñ sa bopp muy benn mm. waaye tamit yaa ñu tooñ ndax ñu la bëgg dafa bari Papa Makhtar Gueye musuñu la gis ci lu bon musuñu la dégg ci lu bon waaye tax nga ba tey kii bon kii di wax bay wax sa mag ba nga xamante ni kenn xamul ca ca la mu nekk te nam ko waxee wax ju ñaaw. ne la Cheikh Yérim la gis te fa nga xamante ni sax fa ci yàlla tey gisu fa sa mag. kan mooy Cheikh Ahmed Cissé. kan moo nekk ci ginnaawam. Jamra lañu war a tëj porte ku jóg rek. dama ne gis nga gis nga Bamba Bamba il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité man mënuma concevoir Jamra Mame Matar Gueye ngay gis mooy présenté wu mooy def lépp nangu nañ ko. mais dafa dem ba sonn. intérieurement dafa sonn physiquement dafa sonn. mais li mu def dafa bari ndax man mënu ma ñëw yow màggetu ba alkaati ku la ne day bàyyi dóor waxu la dëgg. kii caaxaan la xam moom la xamee Gambie ba ñëwee Sénégal récemment mu wax fii lu ne weng ci wàllum préservatif ba mu demaat Amérique ñu yaakaar ni kii du ñëwaat mu ñëwaat Sénégal yi sit yi dékk ko micro yi mu wax ci yàlla ba mu ne ko dooliwaat deuxième coup bi muy deuxième vague. waaye dafa ñëw comprendre ni Sénégalais yi nu ñuy dundee mooy Sénégalais yi sëriñ si ngay laal ñu jóg. ñu jóg mu ñëw nag boole sëriñ si yëpp. teg ne déedéet daaw boole sëriñ si yëpp nguboo leen su waxee ci baytu sëñ tubaab bi nga ne oh est que. mooy teg xasida yëpp mu ñëw di dugg ci Baay Ñas nga ne alhamdulilah. loolu la njëkk a dugg ba xam ne lii mooy seen gëm-gëm eh, mais mais seen c'est c'est un connard na tey. <laughs> <laughs> je te jure. parce que ñun mënuñu concevoir. tey nag tey nag bokk na saaga na ñun ñun ñëpp. nee tey ñëpp bàyyi fi kenn. ñun moom nee na ñun moom ñu gën a woyof bopp ci ci àdduna bi. mais mooy li ma lay expliqué la. Oh. loolu nag ñun ñoo ko balbala la. fii laa fii toog di wax Bamba ma ne. Sénégal gii dafa am nu ñu ko suñu kilifa yi mooñalee. Mm-hmm. Bamba gis nga ñun mënuñu concevoir bu mel ku mel ne Cheikh ame Cissé mii warul te tax yàlla di ñu mbugal ñun. vraiment koo xam ne dafa toog dëkkam ñu dóor ko fa ba muy bëgg a dee génnee ko mu ñëw fi yor dara sénégalais yi favoriser ko di jënd marchandise bi muy jaay produit bi muy jaay sénégalais yi ñoo koy jënd. waaw parce que daa dem ba xam ni. fawum taat Sénégal fawum taat sénégalais dañu fekk fu amul dara ñu def fa dara léegi nag kooku wëlbati koo dal suñu kaw insulte ñu. dama wax lu ko saf daa dem ba ah, xam daa dem xam nga ne day amaat retour. dama ne daa dem ba xam ni Sénégal ci foofu taat la ñuy dox. mu indi ala buri xaw ma ala buri xaw ma langa buri wax na ko est-ce que comprendre ko gis nga Bamba yebaate weesuwul. il faut pas être comme lui. non pas comme lui man de nature man damay génn li ne sama xol man du ma balbalal. Mhm. te man nee naa la dee may affiché photom aw ma lu ma ciy ragal. yàlla ànd ak moom ci dëgg ngay dox ñàkk ànd ak yàlla nga dem ci naafik yi su ko defee moom mu téye naafik yi def ak ñoom la ma bëgg a def ak ñoom te ci loolu la nekk. Mhm. képp kuy naafik yaa koy soutenir. waaw képp kuy naafik ndax naafik weesuwul nga jël sa micro dem tàndar ko ko. ci moment boobu am na koo xamante ni mi nga teg ko bee accusation lañ ko fa jël dugal ko fa taalaloo ko micro. mu soxla ko taalaloo waajuram micro taalaloo ay am ni jàmm micro. Hmm. nga ñëw jàpp ñu mel nii nga bàleen ñu dugg ci dëkk bi ku ci nekk teyo say doom bu ñu bëggee génn dem dem makka kolibantaal bi rek am problème hmm. yow ku nekk di dugg fii Sénégal moom léegi kenn xamul la supp kànja la wala dama daa kenn xamul en tout cas def na lu ñaawa ah, def na lu euh, lu lu salté da pare euh, euh, malheureusement fi mu waroon a jéggaloo dafa ñëwaat quand même yi parce que actuellement il est en train de mettre de sur le feu fekk xol yi tàng ba pare mu defaat ay vidéo di saag man je me dis que ëllëg est moom dina duggati ci réew mi. dina fi kay. boobaa ñu xam ne ñun day dugg Sénégal. ku waxal yàlla wax ju rëy jii. première vague. mu am lu la ca dal nga génnaat duggaat dooraat deuxième vague. su la nee dina duggaat day duggaat. day ñëwaat changé waat stratégie rek. comme ni dama ne day duggaat day duggaat. sénégalais yi ñoo gëmul daa quand je dis sénégalais je parle pas la majorité. dama ne ci biir sénégalais yi dafa am ñoo xamante ni ñoom laay taalifal. Mm-hmm. dama ne Sénégal dëkk la boo xamante ni xale yi ci boppam dañuy lëmbal. yenn yi ci mag ñi dañuy tëmbal ñenn ci jigéen ñi nag dañ leen di ëmbal yenn yi ci góor yi duñ góorgóorlu moo tax fu ñu leen fekk ci lii lañ leen di gis ci genre si Amady ñoo koy jàppal ñoo koy commentéral ñoo koy validé te ñoo koy partagé loolu la fu fekk nit ñi nangu ko Sénégal boobu la ñu ne partie bii dañoo bon ba dugg ci bonologie ñee def bonologue ñii am ñu baax te ñu baax te joom la ñuy néewal doole du ñan jox kàddu ñu wax du ñu nawloo seen i kàddu jël xaalis fal ko wàcc li nga xamante ne mooy dëgg moo tax genre ñi dañuy ñëw dugg di pénétrer rek seen pénétration yóbbu ñu titation ban occasion la ñuy am ba naan ñu ngi def rédaction bay amation zéro faute waay on va clôturer le <laughs> euh, euh, mm, euh, parce que juste pour calmer un donc tempérament yi <laughs> y a eu un rebondissement nag ci affaire Awa Baba Thiam jeeg bi Awa Baba Thiam ak euh, mariage Alioune Seck bi doomam ji Khadija quand même plainte dafa jibaat tey it nag wax dëgg yàlla Mara Niass génn wax ci daan daal plainte yooyu noonu comme moom giskat la te yàlla daf koy may muy gis mooy que ni daf ci gis ak faatu bakkan te coow li nañ ko jël teg ko ci suuf parce que coow loolu jigul sëy bi te mm. ñu bëri yaakaaroon ne quand même coow li fay na mais ndekete ñu ngi koy ruumandaat ci suuf awa baaba di